yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa mbokki jullit ginnaaw bu ñu sant yàlla jullit yi ngeen gi bi def sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant sant sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba di ñaanal xalif général des mourides Cheikh Mamadou Mountakha yàlla bàyyil ñu ko bu baax te guddal fanam bu baax a baax niñ ko baaxu ànd ak rek ñu ngi fàttali ñu fii ci jumaay Touba ci liggéey bu am solo bi nga xam daayira Moukhaddamatoul Khidma mu ngi koy taxawee di ci faral di fegoo kuréel yu fasantikoo yoo xamante ni ñëpp euh, ay kuréel yoo xamante ni dañuy liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi tey jii nag ku wax Touba wax Daaru Salaam euh, waa Daaru Salaam mu assasatu Daaru Salaam nga xam ne kilifa ñoom lañ dalal fii tey ginnaaw bi nga xam ne déglu nañu waxtaan bu am solo yi nga xam ne bokk nañ déglu ndook muy am solo te ñoom ñu koy amal foofu ca barab bu sel boobu nekkal ñu foofu ñu nekkal leen fii tey nag def nañ délégation bu am solo Euh, sëñ Mara Ndiaye war a wax ci seen tur sëñ Mara ginnaaw bi nga xam ne ñëw ngeen ànd ak délégation bu takku ñu ràññee ñëpp nag nga xam ne kàngami Daaru Salaam moom ngeen fi ndi euh, ginaaw bi ngeen déglo waxtaan wi tolool nekk la nga xam ne yéen a koy dundal foofu ginnaaw gi itam ngeen bokk ñu ndogu li euh, lu jiitu loolu nag am ngeen alaaq bu am solo ak daayira Muxaddamatul Xidma yan kaddu ngeen bëgg a joyal ginnaaw bi nga xam ne fekk ngeen loolu lépp sëñ Mara bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulil amin wa ala wa sahbihi al wa man tabiahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi din euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di sant yàlla bu baax a baax euh, waaye ñu ngi nuyoo ci euh, kaddu mu assasati mu assasati daari salaami lil bahsi wa nazari al te Serigne Sam Mbacké moom sëriñ Guédé nekk ca bopp ba mu assasa boo xamante ne bii day taxawee lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ca Daaru Salaam Euh, mu mel ni tey nag euh, ñu ngi ñëwoon wuy si ab woote boo xamante ne bii muxaddimatul xidma moo ko defoon te di ko faral di def muy lu am solo loo xamante ne bii daf koy séq ak mboolem kuréel yi yëngu ci wàllu xam-xam ci dëkk bi waaye Daaru Salaam ak Touba dañoo am alaaxa yoo xam ne alaaxa yu dëgër dëgër la ca diggante maam Cheikh Anta ak Serigne Touba ba ila zamanina haza su ko defee nag kon muqaddimatul xidma euh, féetewu fii ci jumaa ji nga xam ne mbooleem ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu euh, taxawul lislaam di ko jàngale ak di ko tasaare ak di organiser dëkk boo xam ne dëkku lislaam la ci yoonu murit man nañ ne seen rootukaay mu ngi bàyyi ko fi nga xam ne mooy muqaddimatul xidma ñoom ñoo ko jëkkee biñ ko euh, defee nag lu bari ci ay dëkk roy nañ leen ci rawatin dëkk yi nga xam ne Serigne Touba radiallahu anhu moo joxe woon ndigal ci ñu sanc dëkk yooye am ci yoo xam ne jot na faa nekk dund fa Daaru Salaam bokk ci euh, kon ñu ngi sant bu baax a baax ci turu kilifa yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ci mu assasa bi ñoom ñoo ñu yebalal ñu ñëw ñu ànd ak euh, kilifa yi nga xam ne ñu ràññeeku lañ euh, incha allahu fas yéene teewal leen ñoom nag nee na ñu ngi sant bu baax a baax a baax muxaddimatul xidma te xam ne royuwaay lañ ci liggéey bu mel nii. ndax Serigne Touba lu ko waaye di liggéeyal xam-xam ca la bokk bal sax mooy cëslaay la te gis na ne ñoom ñu ngi koy taxawee taxawaay bu bu am solo waaye li ci gën a am solo mooy yaatal gi nga xam ne dañ koy yaatal ba képp koo xamante ne bii yaa ngi yëngu ci xam-xam ñu yaatal la ci di la woo ngay ñëw di sottante ak ñoom ay xalaat suñu bindee ay téere jox la ko téere yooyu nga mën cay def ay marajix di dellu ci yu bëree bari loolu dafa nekk lu ama ama am solo ndax su fekkee ne dañoo yem nii rek ci ci ci jumaa ji di liggéey seenub liggéey su boobaa euh, lu ko gën a rafet du am te su boobaa forcément yeneen kuréel yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi faw ñuy jóg di ñëw fii di jël si loo xamante ne bi ay xam-xam la ndax loolu moom mooy li yàlla dogal waaye ñoom dañoo far yombalal ko lépp loo xam ne bàyyi na fi wala ay téere yu ñu fi indi ñu di ko tasaare di ko joxe di woo di woo kuréel yi ñuy ñëw ñuy toog ak ñoom di leen berndeel li gën a am solo loolu nag ñu ngi ñaan yàlla na leen ci yàlla gën a jàppale yàlla na yàlla yokk seen doole yokk seen kattan yokk seen xam-xam te ful seen tuyaaba euh, li ci des nag mooy di di soññ mboolem koo xamante ne bii rek yaa ngi jàkkaarloog li nga xam ne mu xaddimatu xiin ma ñu ngi koy def ñu ngi la ciy soññ di la woo na nga ca mën a jàppee nga jàppee ko ci rawatina ci wàllu finance ndax xam ngeen ne li ñuy def fii lu ci ëpp ëpp finance a koy def muy ab xaalis loolu nag koo koo xam ne rek bëgg nga dugal sa alal foo xam ne foo ko fa dugalee ëllëg suñ la ko wanee nga bég ca lool booy boon fexe di ko dugal fii ndax leer na ne gis nañ fi ñu koy dugal génnul xam-xam génnul berndeel jaami yàlla yi loolu nag lu am solo yàlla na yàgg ñu koy tax yàlla na yàlla kàttan na leen euh, kon mu assasa bi ñu ngi sant bu baax a baax a baax tey gën a dëgëralaat kullëre gi jaar diggante mu assasati daari salaam euh, lil bahsi wa nashril ilmi ak muqaddimatul xidma waaye kóllëre gi jaar diggante Daaru Salaam ak Touba kóllëre gi jaar ci diggante bépp xalifa maam Cheikh bu fi nekk ak xalifa Serigne Touba loolu moom lu dëgër la waaye ñun it dañ ciy jàpp ngir gën koo dëgëral xam naa loolu moo doon kàddu yi ñu waroon a jàllale asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu macha allah kaddu yi am na solo lool xam-xame na euh, mérite na jullite na bu baax a baax Euh, ñu ngi leen di gën a loxo bu baax rek comme ni nga ko waxee saa su nag waxtu ne saa buñ nekkee ci liggéey Sëriñ Tuubaa buñ sañoon buñ geesoo yem ci yéen incha allah nañu ko yàlla defal tawfeex buñ mën di ko amel noonu te lépp lépp luñ ci def rek suñu borom nangul ñu ko te déppale ko ngërëmu Sëriñ Tuubaa Cheikh Bamba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal wa sahlan wa tarhiiban bilaa